asalaamualeykum aleykum rahmatullahi taala wa barakatuhu nun daara As-Samadiyya man la Tom Niang maa leen di nuyu di leen ziar di leen balu ak te di leen baal di ñaan sunu borom boole nu jéggal nuyoo beeg ziar bi ñu ngi ciy jiital jëwriñu barab bi di sëñ Abdou Samane Mbacke tey rafetlu liggéeyam di ñaan sunu borom doolu nu tawféex nga xam ne rek moom rek moo ma a ñaan Euh, ba lii nu yéene lépp muy lu baax te euh, weesu lu dul liggéeyal sëriñ Touba euh, sëriñ Touba dëpp nu kàttan gun ko matale ndax groupe bi saa soo koy dégg rek wala ngay déglu boroom xam-xam yi liñ sotti nga xam ni ku nekk sa yéene mooy rek li nga xam ci lu néew nga fexe ba rek liggéey ci sëriñ Touba kon yàlla nañ ci am tawféex comme ni ko baaxoo def rek samedi bu nekk bu huit heures jotee. ñu nekk ci émission bi nga xam ni mooy immigration et développement immigration et développement nag luñ ci jublu fexe ba immigré yi yi nekk ci àdduna bi muy diaspora bi nu xool lan mooy seen taxawaay foofu nu nekk ci barab yi fasantikoo te ñu xam ko euh, nu jéem a fexe ba rek euh, euh, xam-xam bi nu am ñu fexe ba jariñoo ko ndax amul benn réew boo xam ne ci àdduna euh, développé na te diasporaam jàpp ci loolu nag mooy tax ñu tudde koy immigration et développement tey nag euh, danoo ñëwoon ngir waxtaan ci benn thème boo xam ne am na solo lool di temu jamono muy réfugié euh, réfugié nag buñ koy tekki rek mooy daw ku daw làqu ku daw làqu ndax immigration dafa bari ay façon mooy ki nga xam ni yàlla dafa def moom dem ñaan visa génn dëkkam dem feneen ngir liggéey ngir war ngir jàng wara ngir sax tourisme kooku immigré dañ koy wax bu dee réfugié nag mooy koo xam ni moom moom dañ dañ koo bunduxatal dañ koo bunduxatal ci xalaatam wala ci pas-pasam tax mu daw loolu nag dafa wuuteeg li ñu naan immigré gis nañ ni nag jamono ji ni mu ni mu ni mu ni waar te li ko tax mu gën a doy waar mooy li ñu naan mbëkk mi barza barzaq ñu dalal ci nag koo xam ni ñun ñëpp xam nañ ko rafet lu xam-xamam rafet lu taxawaayam ma koy woowee avocat aboka avocat Serigne Touba Serigne Souleymane Codou Fall ñëwoon rek bëgg a waxtaan ak moom Euh, ci li nga xam ni moom mooy euh, réfugiés yi su ko defee mu ñu def ci benn jàngat bu xóot xool tamit ni mu lëkkaloo mbirum immigration lan mooy ci taxawaayu sénégalais yi ak jafe-jafe yi ñuy dund ak yoon yi ñuy jaar ba laaj loolu ñu naan statut de réfugié ak li nga xam ni euh, jamono ji ñu toll nan la ci état européen yi taxawe yooyu yëpp mu nekk ay jàngat yoo xam ni. danoo bëggoon tey ji ñu def ko ànd kook moom ak Mamadou Diop incha allah euh, ci waxtu xam naa ni comme que xaw na noo retard ndax débat bu am solo di nga xam ne sëñ bank sëñ biñ ci doon def muy comité bi muy wax moo tax ñu ni nan nan nan nan nan nan taaxeelu rek euh, mbokk yi jeexal lii ñu door a tàmbali euh, réfugié nag buñ koy wax dafa am benn convention boo xam ne moo ko tënk benn xaatim muy convention bu 28 juillet 1951 nga xam ni moom moo moom moo moom moo tënk euh, yoon wi nga xam ni ci la ñuy xàmmee kan mooy ki nga xam ne mooy réfugié ak kan moo ko ko nekkul te loolu ñu ngi ko nose ci déclaration universelle des droit de lome bu 1948 euh, convention boobu nag moom mooy jox li naan droit d'asile droit d'asile mooy ki nga xam ni daw na làqu ngir bu ndaxatal buñ ko bu ndaxatal ci ay xalaatam wala euh, nu mu tudd ci pas-pasam wala tamit guerre am guerre am ni comme li xew Afghanistan comme li xew Libye nga xam ni ñoom seen wàllu bopp fan nekkoon mënatul faa dëkk loolu nag la convention boobu di xiyaas bu ko xiyaasee natt ko ci ki nga xam ne moom moo ñëw def demande ci la ñuy sukkandiku ngir may ko statut réfugié loolu nag mooy li nga xam ni incha allah ci leen war a waxtaanee te nag bu réfugié buñ koy wax euh, du lu bees ndax euh, man dama naan euh, moo tax jullit ñi li ñu am ñu am ko bi ñuy dem Abacha ñun ñëpp ñu ngi koy fàttaliku bi jullit ñi demee Abacha yeneen ci mi ni leen soo leen bëggee man ngeen a dem Éthiopie ngir tar na sonn ngeen te bu ndoxatal tiis na boo leen fa demee da ngeen fa fekk buur bu jub buur bu maandu buur bu tegu ci dëgg soo leen fa demee dana leen aar dana leen dalal ci la Ousmane ànd ak soxnaam Roqaya di doomu yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam Zubair ibn Awam Musay ibn Umayr Abdurahman Awf Abu Salama ak soxnaam Umu Salama ginnaaw bi da leen Jaafar fekk si falan amee dal ak féex ba ñu jëlaat jullit ñi dalal leen Médine fanaan amee doole kon jullit ñi ci ci ci ci ci daw laxu lan am lu mu amee kon Afrique moo tax dama naan afrig afrig Afrique amee nañ ko njukkal ndax yeneen ndegam yeneen ti moo dem ba ni jullit ñi boo leen jaaxalee dem leen euh, Afrique buur bu juba nga fa buy jubal buur bu buur bu maandoo nga fa kon ñun ñun lislaam sunu sunu sunu sunu sunu yëf la lislaam suñu yëf la loolu nag dama ko dugge woon rek pour wane ni euh, loolu yàgg na fi kon incha allah dañuy tàmbali waxtaan wi rek euh, euh, dalal Souleyna Codou Fall asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki As-Samadiyya seen mbokkum taalibe Mouhamadou Lamine Diop moo leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi kilifa ak jotaay bi sëriñ Abdou Samad Mbakke moom Cheikh Souhaïbou di ko ziyaare di nuyu kilifa yi ci biir jotaay bi yëpp di leen jox seen wàccuwaay di dikk yéen ci sunu waxtaan wi ni ñu ko baaxoo def gaaw bu jot te ñu ko ànd sëñ Toob Ñang sëñ Pape Maxtaar ak euh, sëñ Amar Babu ak euh, sëriñ Sàmb suñ mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo féete fii ci bitim réew ñenn ñi féete Italie ñi féete France ñi féete Belgique ñi féete Amérique ñi féete Angleterre waxtaanu tey wi nag ñu fas yéene ko jëmale ci noonu ko sëñ Toob waxee rek mooy réviser yi nga xam ne nii wax dëgg yàlla. mooy ñi nga xam ne immigré yi nga xam ne dañuy jóge seeni réew di dugg ci réew yi moo xam ñi ci ëpp nag xëy na Europe lañ jëm wala ñu jëm Amérique euh, xëy na Amérique sax mooy gën a ay jafe waaye eh, ndax moom xëy na foofu ñaari visa lañ fay duggee waaye fu mel ne Europe nga ne léeg-léeg immigré dañu ay jaarwaay yu ñuy jaare bay dugg ci biir Europe te duñ jaar ci frontière normale yi nga xam ne dañuy am ay visa mooy ñu dugg ci gaal yi ñaare di di di di jóge Afrique ak jafe-jafe yi ñu fay jànkonteel yépp nag tey tey fas yéene ci ànd ak euh, sëñ Souley wax dëgg yàlla di ko nuyu di ko ziare di ko dalal di ko wax euh, waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu fekk ci kër gi di As-Samadiyya leen di nuyu bu baax di leen ziara di am mbégte lool ci bokk ci liggéey bu am solo bi. di beral nuyoo Serigne Abdou Samad mi nga xam ne moom moo wootee liggéey bu am solo bi di ñaan suñu boroom eh, def ci tawfiq bu baax a baax ndax wax dëgg liggéey bu amam solo la te yoonu mooy soxla la jamono yi ñu toll. asalaamaaleykum wa rahmatulah kon Souleyma koddu eh, laaj bi ma la bëggoon a laaj rek mooy eh, jamono ji ñu toll. Euh, boo doon wax ci mbirum réfugié ak euh, sénégalais yi nin koy dunde ci ay jafe-jafe ci ay gàllankoor nga xam ni mën mi yàlla def na am naa ci expérience nekk kon koo xam ni jàngale na italien ci centre d'accueil at tum lëmb di leen jàngal italien yow boo doon def ab jàngat jamono ji ñu toll lu jëm ci réfugié rawatina sénégalais yi nga xam ni dañ cee feeñ te ñëpp xam na ne Sénégal amul kenn kon fa bu ndaxatal amul guerre bu tax ngay laaj réfugié boo ci doon def jàngat ban jàngat nga ciy def. jërëjëf sëñ Top ma yokk ci ab laaj rek euh, ñi ndéggandiku sëriñ Souleymane Mako duñ dugg si ci di biir jotaay bi may laaj ne euh, ñi nga xam ne nii dañuy nekk France xay na yaakaar naa sëriñ Souleymane Mako moom France lay gën a miin. Euh, immigré yi nga xam ne ña nga fa rawatina sénégalais fa nekk di fa dugg si ca dugg si dugg wuñ fa ci visa nga xam ne dañoo jaare ci frontières yi dugg noonu rek dugg fa manière boo xam ne ni tubaab bi wax clandestin euh, ñoom nan la ñuy def ak buñ waa dëkk bi autorités yi suñ accès ci dëkk bi fan la ñuy teg seen tànk buñ ñëwee ak yan jafe-jafe jal lañ fay jànkonteel ndax Italie am na système boo xam ne nii ña fay duggee ci dugg wuñ fa visa dugg wuñ fa ci frontière normale dugg fa comme clandestin suñu dikkee fan la ñuy jaar Italie am na ci ay normes yoo xam ne nii préparé na ko pour ñooñu ndax moo France ñoo bokk wa ilaa France ñoom nan la ñuy doxalee immigré fa nag rawatina ñi nga xam ne ay sénégalais lañu. asalaamaaleykum bokk taalibe maa ngi ni ziar waa ahlu samadiya di ci jiital suñu sëriñ bi suñu xarit bi sëriñ Abdou Samad Chouaïbou di ziar suñu toog ñang di siyaal sëñ Modou mii nga xam ne moo mujj dugal beneen laaj euh, bu ñu wi waxtaan ci wàllu réfugié ak ci wàllu immigration d'une façon générale dañuy xam ne idée bi nga xam ne moom lay développé ci léeg-léeg bu ay daje amee ci yu demee noonu damay wax tubaab yi ni leen immigration de boo ko seetloo mu ngi mel ni picc boo xam ne dafa nekk ci gox boo xam ne gisu fa lu mu lekk mu naaw ba demaat naaw ba sori ba xooli beneen gox goxaat boo xam ne mën na faa for lu mu lekk loolu moom mooy li nga xam ne mooy la l'image de l'immigration ginnaaw nag yéen da ngeen a noot Afrique ba seen ressource ngeen jël ko ci ñoom mu ngeen fa mu ngeen ngeen mënoon ngeen faa bàyyi euh, loxo yi nga xam ne mën nañu liggéey waaye loxo yooyu ci histoire ñu def leen ay esclave ñi nga xam ne ñoo fa wéroon ñu leen woowee ay étalon ngeen jàpp leen yóbbu def leen ay jaam ay ati at ngeen di ko def bi ñu weesoo loolu euh, ñu fipp ba nekk ci indépendance ci lu ñuy woowee indépendance ba léegi tubaab yi nangu ñoo bàyyi ñu développé suñu bopp ba nga xam ne daanaka kenn du ci gis sa bopp loolay waral nit ki bu amul lu mu lekk dafay dem wutali beneen barab bu mu amee lu mu lekk loolu moom mooy principe immigration bu dul lool loolu ku nekk boo amee la nga lekk sa kër ala kulli aal doo fa jógee waaw bu ñu jiitalee image boobu nag mooy ñu expliquer ne booy ñëw réewub jàmm ndax réew yi dafay melu ni ay kër yoo xam ne dañoo ubbeeku dafa nekk ay kër yoo xam ne dañoo tëju tëju boo xam ne booy dugg ci bunt bi am na ay charte yu ñuy tëral ay conditions yu leer yoo xam ne moom ngay duggee ci kër jàmbur principe boobu moom mooy visa booy dugg kër jàmbur yaa ngi dugg réew jàmbur réew yu bare bari dañuy laaj suñu réew yooyu di réewi Afrique yi nga xam ne ay réew yu néew doole lañ ñu am lu ñu woowee visa d'entrée loolu mooy principe bi bu ñu la joxee visa d'entrée nga dugg bu dee visa touriste la nga def court séjour def temps bi nga fiy def en général mooy visa yoo xam ne bu dee France la yu mot yoo xam ne trois mois maximum la mën na am ay visa entrée multiple yoo xam mën nga dugg génn ay yoon yoon waaye bu fi def lu ëpp trois mois muy visa d'entrée pour nga ñëw touriste am na itam ne ni visa yu long séjour yoo xam ne pour nga ñëw nag toog ci réew mi la mu mel ni étudiants yi ñu ñëwee visa long séjour la ñuy indi jàng at bu nekk ñu renouveler léeg-léeg sax na ay titres pluriannuels yoo xam ne dina permettre étudiant bi mu toog ay at a jàng mu ngi mel ni visa long séjour conjoint de français kooku day tax nga ñëw fekk sa sa soxna boo xam ne nationalité française la am wala sa borom kër boo xam ne nationalité française la am fekk si ko loolu yëpp ay visa long séjour la loolu bu ko weesoo ci ñi nga xam ne loolu la ñuy wax entrée régulière mooy sa dugg France wala nga sa dugg Europe wala réew buy laaj visa euh, dugg bi teg nga ko ci yoon loolu la ñuy wax entrée régulière waaye bu ko weesoo nag pour ñu dugg ci waxtaan bi nga xam ne moo jëm ci wàllu réfugié yi tontuwaale ñaari question yi nga xam ne moom la ñu posé mooy ki nga xam ne nag dafa dugg ci réew mi te tàggul moo xam daa jël gaal moo xam beneen pexe la def ba dugg ci réewu jàmbur te amul visa bari na ay façon ñaareel nag ñoo ñii bu ñu egsee surtout sénégalais yi ak africain yu baree bari dañuy dugg ci réew mi rek dañuy am réflexe demander asile maanaam demander asile ci euh, définition bi nga xam ne moo nekk ci wàllu euh, ci lu ñoo lu ñuy woowee réfugié euh, Afrique sax dañ ko woowee daw làqu daw làqu mooy koo xam ne fa nga ne yaa ngi ragal ni ci idée yi nga am moo xam ci politique moo xam ci di nga gisee réew mi gu boo moytul danañ la faagaagal ba nga xam ne loolu la wax crainte pour sa vie wala ñu menacer la ci façon bu mu mën a doon ci kaw mën laa rey ci kaw ay opinion yi nga xam ne yaa ngi koy véhiculer nga daal di daw làqu ji ci réewu jàmbur moo xam guerre daa am sa dëkk ngay wër nga wër làqu ji ci benn réew loolu lépp foofu lépp mën na fa soxe ko moo tax ci Afrique ci gàttal ñu koy woowee daw làqu daw làqu boobu yi nag boo ñëwee réewu jàmbur mën nga ne fii laa làqu kon may ma asile ma làqu fii waaye moo tax sénégalais yu bëri bu ñu egsee ñoom dañu am réflexe même bu fekkee seen réew amul guerre ndax Sénégal alhamdulilah amul guerre waaye dañuy jàpp ne da ngaa war a dugal automatiquement droit demande d'asile li koy waral moo di boo dugalee demande d'asile ba ñu jox la attestation de demande d'asile préfecture jox la attestation de demande d'asile d'asile loolu daf lay dugal ci situation régulière dafay mel ni yow autorisé nañ la nga nekk ci réew mi ba fii ñu ba fii ñuy tontu euh, sa demande d'asile mooy fii ak administration di la jox tontu xam ndax yow jël jox nañ la ay kayit wala joxuñ la ay kayit te loolu mën naa jël euh, ay weer waaw mën naa jël ay weer ci diggante boobu sax am na lu bu dee France fii am na loo xam ne. neexal bu ñuy neexal ñi nga xam ne ay demandeur d'asile la di leen verser benn montant boo xam ne dinañ ci mën a suturlawu ba fii ak OFPRA di joxe réponse ci seen demande d'asile bu OFPRA benn organisme bu ñuy wax OFPRA bu joxee réponse ci seen demande d'asile bu réponse bi baaxul ñu mën a dem ala kulli haal euh, mën a dem ci beneen ñu mën a def recours euh, fu ñuy wax CNDA waaye ñu xam ne euh, France bu dee réew bu mel ni France ak yenn réew yi dañu jëm ci lu ñuy wax durcissement de la procédure euh, de demande d'asile mooy bu njëkk demande d'asile ak a neexoon ndax ñu bëree bari bu ñu dugaloon asile mu jigi day aboutir waaw France bu réew mu mel ni France ne man maay euh, réewu droit de l'homme kon ku làqu sama réew rek danaa fexe nu ma la joxe kayit waaye léegi li fi xew mooy dañoo durcir texte yi maanaam jaare ci asile ba am kayit lu métte métti la lu jafe-jafe la ndax fi ñu lay njëkk euh, sonale mooy récit bi ngay bi ngay indi ndax ñaareel euh, am na ay jamono yoo xam ne fii France bi événement yi amee ak Dadis Camara guinéen yi dañ daan dugal africain yu bari dañ ne guinéen lañu daal di wax ne ñoom ña nga woon sa stade ba def nañ lii def lañ la ci lañ jóge daw seen réew daw daw làqu si France ko defee ñu jox leen ay kayit guerre Côte d'Ivoire bi Côte tamit bi muy amee ñu bëree bari moo xam sénégalais mauritanien da nga naan ivoirien nga daal di def sa récit waa daal di nettali nii village boobu laa laa dëkk ci Côte d'Ivoire nangam nangam ñu jox la ci kayit bëgg ñu jox la ci kayit laay wax loolu la ñuy woowee récit booy def asile da nga am récit boo xam ne moom ngay déposé ñu jox ko OFPRA OFPRA nag bu ko xoolee dinañ la woo ci benn entretien waaw entretien boobu nag foofu lañ lay càmbar jox lay poser lay question yoo xam ne boo moytu di nga daanu ndax dinañ xam ne li ngay wax dara tegewu ci yoon. Euh, réew mu mel ni Sénégal nag nit ñi li ñuy baaxoo mooy ñu dugal loo xam ne récit la buy wax ne dañu doon borom ñaari tur yi ndax Sénégal li ñu ko xamee mooy dañ fay bañ borom ñaari tur yi ndax euh, acte contre nature lañ koy wooye su ko Sénégalais yi yu baree bari bu ñu bu ñu nee guerre dañ naan Sénégal amul guerre euh, léegi dangay ngay mujjee mooy danga nga ban ah, bu ma nee sama doom dañ ko doon menacé exciser maanaam dañ ko doon menacé defar xarafalu xarafalu xarafalu jigéen lañ koy wooye wala man dama daw ngir dama doon boroom ñaari tur yi ñu bëgg maa rey ci yu mel noonul la sénégalais yu bëri di dugal pour mu mën a aboutir ndax yooyu ñaareel day jàll waaye ñu xam ne lu luñwul ala kulli xaal récit bi ngay présenté pour wa nettali sa histoire ndax ñu ne yow mii daw làqu nga ba mën cee joggi jox la kayit ci wàllu asile Euh, récit boobu ñaareel ñoom dañ koy càmbar ndax léegi am nañ ci expérience ba kenn mënu leen a nax ba nga xam ne entretien bi ngay am offra ñaareel boo fa demee da ngay daanu ndax ñoom dinañ xam ne li ngay nettali dara du ci dëgg ñaareelu jafe-jafe bi moom mooy euh, composition euh, cour nationale du droit d'asile ndax bu njëkk cour ba ña fa newoon yàlla ñu yaarame la woon ñu yaarame lañu woon ñu bëri woon yërmande loolu waaye bi Sarkozy fii ci France nekkee président dafa soppi composition cour bi ba nga xam ña ne ñu méttee métti lañu ba sax booy plaider devant devant d'asile ñoom procédure lañ koy dañ koy modifier boo ànd ak sa avocat euh, dañuy wax ak ki nga xam ne moom moom moom dossier bi di wax ak moom di ko poser ay question ba xam ne kii léeg sax ñu ne ko waaw yow nga ne village sàngam nga dëkk ci Côte d'Ivoire nga ne waaw ñu wan la carte bi la wanal fi village bi ne yan village yi ko wër nu ñu tudd su ko defee dañuy xam ne kii di présenter dossier bi li muy wax dara du ci dëgg ñu soog a jox kàddu avocat bi fekk avocat moom xam na sax daanaka ne client am li muy wax tegewul ci yoon moo tax nag euh, ci conséquence bi taux de rejet yi dafa bari maanaam asile boo ca duggee euh, ci tënk mën na régulariser sa situation en attendant régularisation provisoire la ndax boo yoree attestation de demande d'asile bi fii ak yaa ngi fi kenn mënu la jàpp delloo la sam réew waaye mujjantal gi yëpp mooy dañuy rejeter sa demande d'asile su ko defee nag nga nekk en situation irrégulière waaw loolu ci gàttal daal moom mooy li nga xam ne mooy réflexe yi nga xam ne bu ku jël gaal bi wala nga dugg ci réew mi nga am demande d'asile ak lii mooy li nga xam ne moom moo lay xaar en attendant yeneen question ñëw incha allah ba ñu mën a yaatal ci wàllu immigration ci wàllu naka la ñuy amee kayit ci bu fekkee yaa ngi liggéey lu ñuy wax régularisation salarié naka ngay amee kayit bu dee ki ngay sëyal dafa am nationalité française ak yeneen ak yeneen yoo xam ne incha allah mën nañ cee gën a yaatal jërë ngeen jëf. Euh, jërëjëf euh, Souleymane Codou yaakaar naa ni leer na naññe euh, ndax. dafa di mbir moo xam ni euh, mbir mu doy waar la ndax euh, ñi koy sàkku euh, la tax ñu leen di woowee réfugié dund loolu li naan bu ndoxatal la bu ndoxatal boo xam ni ci sa pas-pas wala ci sa xam-xam loolu nga xam ni daanaka booy xool yàggoon na Europe Europe boo koy xool au seizième siècle euh, Amérique li ko samp mooy ay réfugiés ay daw làqu lan mooy ñi nga xam ne danoo dawan ngir seen diine euh, booba protestant yi euh, commencé nanoo yëkkati seen i kàddu daw làqutu ji Amérique ñiy jógee ay nu mu tuddati ay Hollande dem làqutu ji Angleterre moo tax mu nekk loo xam ni ñoom ñépp man am naa ci expérience ndax nekkoon na traducteur muy muy lu doy waar ndax toroxlu gi ñuy toroxlu rek wax nga ko am na ñoo xam dañ naan boroom ñaari tur ñaari tur ñaari turi leen muy gor jigéen am na ci koo xam ni dafa tudd Mohammed mais dafa ni dama tubbi nekk chrétien muy lu doy loo xam ni nag euh, maanaam euh, war nañ cee bàyyi xel ndax suñ demee ba léegi suñu doomi askan wi du toroxlu ngir ngir ay këyit muy gën a indi ak xeebeel ci eh, askan wi loolu doy waar la moo tax ma bëggoon laa laaj eh, Souleymane Codou yow eh, yooyu nga xam ni moom la moom la moom la kii di di di di Sénégalais yi di def est-ce que maanaam yow xam nga am nga xalaat boo xam ni mën nga ko cee eh, tàbbal ngir ñu am ci ay solution ndax tamit eh, da ci am leen loo xam ni yow mi nga xam ni yow yaa nekk di àtte eh, da ngay dem ba sa wàllu bopp da ngay am yaraanga moo tax foofu bëggoon naa tamit mu nga nga def ci aw taxawlu goo xam ni est-ce que yow sa wàllu bopp yaa ngi jéem a liggéey liggéey boo xam ni dinga leen teg ci yoon woo xam ni amaan na buñ ci jaaree dinañ am kayitu réfugié asalaamaaleykum suñu topp jërëjëf dégg naa sa laaj leer na lool waaw sa contribution tamit am na solo yàlla na sama borom gën la leeral sa dënn ba sa xam-xam gën a yaatu gën a barkeel waaw ci ñaari laaj yi nga ma laaj lan moo ci solution ci sénégalais yi noonu ñuy def moo xam jël gaal gi rek dugg réew jàmbur di ci di di jaare ci laaj asile li ma ci gis daal mooy réewum jàmbur boo fay dugg nga dugg def lu ñuy wax entrée régulière wut visa dugg boo ko mënul nga toog sam réew delluwaat ci njàngalem sëñ Abdou Samad bi mu def ci fan yu weesu xam ne nit ki mën ngaa nekk sam réew tekki fa ci gaw boo góor góorloo wàkkirlu ci ci yàlla xam ne yàlla boo ko doyloo mu doy la man yatawakkalu ala Allah fa wasbuhu kon loolu moom mooy li nga xam ne mooy gëm yàlla toog sa réew kocc koccal di def par benn ba mu yàgg mu nekk ñaar ba mu yàgg mu nekk fukk ba mu yàgg nga mën a tekki sa réew loolu mooy njàngalem suñu Abdou Samad bi nga xam ne dafa fees dell ak xikma defoon ko ci fan yi weesu moo gën nga ne da ngay dugg réewu jàmbur mel ni da ngay xëtt seen bunt dugg fa par force forcé daal di dugg nag déposer demande d'asile léegi nag li nga xam ne mooy ñaareelu question bi ci kaw naka ngay def ba sa demande d'asile mën a jàll mooy daanaka loolu laa junj sànq mooy récit bi ngay présenté na nekk dëgg ndax bu nekkul dëgg tubaab bi léegi yeew nañ yeew boo xam ne bu dee France dinañ la jaarale OFPRA sa récit boo ko dugalee OFPRA benn office euh, des réfugiés ñoom ñooy euh, ñoom ñoo koy càmbar bu ko defee dinañ la woo defal yow entre entretien làkk boo mën a làkk nag interprète dafay teew bu ko defee doo mën a wax ne waaw li ngeen ma làkkoon xamuma ko nangam nangam di firi li ngay wax nga nettaliwaat yow sa histoire bi tax ñoom ñu yërëm la ba ne yow mii da ngaa war a mën a bénéficier du du statut de réfugié ñu mën a faire aboutir sa demande d'asile danañu xool ndax yow li nga li nga nettali ne moo la daw sa dal sam réew ba ngay ñëw di wuti foo làqu loolu dëgg la kon conseil bi may njëkk a joxe mooy récit bi ngay wax doon dëgg ndax bu dul dëgg ñu la dëgloo entretien rek du jàll léegi nag bu AFPRA gisee ne entretien bi doxul day rejeté bu rejeté nag yow am nga recours boo mën a def bu dee France la am na ci wax am fu ñuy wax cour nationale du droit d'asile ñaareel recours OFPRA yëpp bu demee cour nationale cour nationale dafay confirmer rejet wu OFPRA bi su ko defee du mujj fenn kon daal ci gàttal mooy benn bi na booy dugg réewu jàmm na nga am visa amuloo ko toogal sam réew yaakaar sa borom bul nag am benn kersa ci liggéey liggéey bu mën a doon ba mën fa tekki ñaareel bi moom mooy booy ñëw ci réew mi ne da ngay daw làqu ji na nga indaale récit bu bu tege ci yoon bu bu dul loolu tubaab yi léegi yeewu nañ ba kenn mënatu leen a nax ne man ab guinéen laa fekk doo guinéen wala mauritanien laa fekk doo mauritanien parce que bu ay jamono Mauritanie lañ doon jël di def ay récit ne man dañ ma faa defoon ab jaam ak yooyu mais loolu lépp doxatul doxatul léegi jërëjëf sëñ Top. jërëjëf sëñ euh, Souley Souley Makoddu loolu yaakaar naa ni mooy yi nga xam ne moom mooy solution bi. Euh, wante dafa am loo xam ne dama dafa ma rëcc ci ci ma fàttali ko laaj maanaam su ma ko ñi nga xam ne dañuy wax ni danoo tuub nekk ay chrétien ñu bundaxatal leen ak euh, ñi nga xam ne dañ ay góor jigéen est-ce que ñu seen demande am nan euh, chance ñu accepté ko kooku mooy benn bu loolu weesoo tamit su ma ko coow li bëri na France de ci sénégalais yi la deuxième génération bu ñu xoolee Zemmour li mu wax mu ni daanaka trafiquant de drogue yi. ñu ci ëpp ay sénégalais lan xañ na li mu wax lu ñaaw la de euh, te euh, euh, yéeneem mooy jël immigré immigration xeexe ko ci campagne électorale yi wante man dama gis ni deuxième génération bi da ci am ñoo xam ni daal ñun waajal ginnu waajaloon nu jàng am diine amuk taalibe deuxième génération bi daal dama gis ni daal loolu manqué na ci ñoom ba dafa mel ni dafa laal góom boo xam ni ah damay ragal ni am na ñu bari ñoo xam ni euh, ci ci ci ci ndaw yi dem dem Europe bu dëgëree rek dañuy dañuy jéem a dugg ci li naan euh, la criminalité xam na nag du Sénégal yëpp parce que dafa ni Sénégalais yi Sénégalais yi ñoo ëpp ci léegi ñuy jaay ay drogue ay Sénégalais lan wante yow ban jàngat nga ciy def ci déclaration boobu Zemmour def ndax tamit mbir la moo xam ni. Ah, li naan la lay sal salaf à famille ñun tamit war nañ ci war a waxtaane xool eh, ndegam tamit loo loolu mu tudd am na lu ci xasawam déet asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu sëñ Souleymane Codé ñu ngi lay nuyu di la ziyaara bu baax di rafet lu kàddu yi lool leer na nañ sell na lool tabaarakallah wax dëgg yàlla may yokk ci may sama beneen laaj boo xam ne nii eh, yow mi nga xam ne nii wax dëgg yàlla sa xam xam ci lii la ci jëm ak euh, jafe-jafe yi nga xam ne yaa ngi ko ciy jànkonteel ndax euh, yaa ngi xalaat ne jaaru na tey bu may wax nag ci Sénégal la tax may wax ñu jéem nag maanaam euh, fexe ba suñu autorités yi nga xam ne nii ñoo yor maanaam ñoo nekk Sénégal ñu xam dëgg dëgg dëgg lan la sénégal yi jànkonteel bitim réew moo xam France lañ ko jànkonteel bala ñoo agsi sax France bu ñu jógee Sénégal di jaar Mali Niger. lii bi di di di jaar ci géej gi ba kër ñuy dugg France jafe-jafe yi nga xam ne dañ ko jànkuwanteel ci diggante ak li fiy dee ci doomu Sénégal yi niñ toll léegi góor ñi ak jigéen ñi sax bu njëkk xale yu góor yi rek waaye léegi jigéen ñi sax dañ cee bokk am na ci ay histoire yoo ne wax dëgg yàlla buñ la ko nettalee sax dootoo nelaw am na ci ay image yoo xam ne buñ la ko wanee dootoo nelaw ndax maanaam métti gu muy métti ci gis wala nga di ko dégg ma jàpp nag ne wax dëgg yàlla yaakaar naa yéen borom xam-xam yi Eh, eh, wax dëgg yàlla am ngeen ci beneen gisin boo xam ne nii eh, jaadu na nag ñu jéem a soññ suñu autorité yi ñu xool ban taxawaay lañ ci taxaw ndax bu ñu seetloo Union européenne li ñu wax ne moom la ñuy dépensé ci fexe arrêté clandestin yi jóge Afrique dugg Europe ni mu toll te loolu lépp mënoo ko gis fenn ci Afrique wane ne lii Union européenne ñoo fi def yàlla wala ñu deq ni wala ñu deqatal nangam problème bi ba du agsi ci ñoom loolu yaakaar naa jar na benn jàngal ñu ngi lay sant nag wax dëgg macha allah. waa jërëjëf suñ topp waaw question boobu nga posé am na solo lool euh, ndax Zemmour li mu wax dafa am lenn lenn ci loo xam ne euh, mën na xaw a tey xel tuuti ci boo xamee dëgg-dëgg communauté sénégalaise ndax ñun ñi fi ne xaw nañ fi yàgg man je pense def naa fi ci ci ren kon bëri na loo xam ne nag wax dëgg yàlla linge sale se lave en famille am na loo xam ne xam nañ dëgg dëgg dëgg yenn taxawaayu suñu yenn mbokku sénégalais yi du ñëpp nag. waaw sénégalais yu baree bari wax dëgg yàlla ci liñ ñu yaree euh, ci ay yar ak teggin ak jub loolu mu ngi ci ñoom waaw am na ñoo xam ne bu ñu ñëwee seen réflexe mooy fan la daayira murit ne wala fan la daayira beneen tarixa ne nga dem fa jokkook ñoom ngir sàmm sa diine ñoŋal sa diine loolu am na fi la kulihal loolu lu mel noonu moom mooy sauver ñi nga xam ne ñu mel ni yow macha allah ngay sama magum taalibe di ab jëwriñ nga xam bu baax a baax fan ngay teg sa tànk waaye am na ci ñenn ñag bu ñu ñëwee comme ni nga ko waxee bu xasee ba dëgër rek dañuy daal di dugg ci yoo xam ne naka su noonu loolu la ñuy wax la criminalité te ñu ci baree bari nag bu ñu bañ a ndëbboo parce que ñun fii Paris am na fu ñuy wax dix-huitième waaw dix-huitième ku ne xam ne am na benn rue boo xam ne du ko tudd ndax damay ragal nit dëkk fa pare defe ne dama koy stigmatiser ku ne xam na ne yenn waxtu yi foofu trafic de drogue moo fay am te ñu ci baree bari ay ñoom ci loolu la ñu yëngu loolu yàlla dëgg la. waaye nag Zemmour li mu wax nga xam ne kenn mënu ko dëggal mooy bu nee sénégalais yëpp ay délinquant la loolu du dëgg waaw loolu moo la ku yàlla loolu waxi euh, kuy campagne la ndax ñoom bu ñuy politique dañuy xam ne am na benn mbir moo xam ne ça marche maanaam mooy tax ñuy gën a am seen électorat di gën a yéeg sondage yi di di gën a yéegal muy bu ñuy bu ñuy ŋàññi jullit ñi seen sondage yi dañuy dañ ciy gën a yéeg bu ñuy ŋàññi immigré yi maanaam seen seen it seen sondage sondage tamit day gën a yéeg jëm ci ci ci seen jëm ci ñoom muy Sarkozy xamoon na loolu moo tax immigration rek la doon ŋàññi ŋàññi ŋàññi pour moom insécurité bi am France immigré yi la loolu ci loolu la dem ba falu waaye gis nga yàggul dara benn mandat la def ñu jëlee ko fi ndax nit ñi dañuy xam ne dëggantaan ki li mu doon wax euh, du du du du dëgg waaw Zemmour moom it am na malchance sax jàllul jàllul sax premier tour kon ñu jàpp ne loolu mu doon wax boole ci sénégalais yëpp loolu loolu moom du dëgg waaye am na ci ñenn ñenn ay sénégalais yoo xam ne moo xam. waaw ngeen ma dafa dagg ndax dafa am ku noonu war ci suuf kon nag ñu xam ne Zemmour loolu mu wax am na lu ñuy wax part de vérité waaye bu nee sénégalais yëpp loolu nag moom wax dëgg yàlla loolu loolu loolu mënta nekk dëgg. waaw amaana nag ñi nga xam ne dañuy ñëw ne dañoo tuub ñu persécuter leen wala dañoo nekk borom ñaari ñu persécuter loolu nag wax dëgg yàlla wax dëgg moom lii sëñ Abdou daal doon wax li nga waxul dëgg ba am ko boo waxoon dëgg it am ko ndax sa wërsëg la kooku moom dara jarul ñuy def te ak ñuy ñuy wax loo xam ne amul surtout que récit bi boo ko présenté off rek dañ lay mën a poser quelques questions ba xam ne yow li ngay wax dara du ci dëgg jërëjëf sëñ Top. Euh, jërëjëf euh, ma Codou euh, di rafetlu tontu yi xam ni rek moom France moom. yàlla dafa def li naan l'islamophobie ak euh, la xénophobie euh, daanaka mooy fond de euh, commerce en campagne électorale ba la droite moom toujours ci lay jaar rek ngir bëgg am li nga xam ni mooy l'électorat léegi nag Souleymane Code dama bëggoon ñu ñëw ci maanaam immigration en tant que tel par exemple France maanaam Souleymane Code maanaam France ak euh, sunu rapport yi nga xam ne am nañ ko ak France mu nekkoon pays bu nu colonisé yow ban ban ban jàngat ngay def ci taxawaayu immigré yi est-ce que immigré yi Sénégal yi nekk en France est-ce que potentiel lan boo xam ni bu ci état bi defoon ab jàngat danañ mën danañ dinañ mën a def des acteurs de développement ñu nekk de protagonistes mooy maanaam nekk ñoo xam ni buñ leen bàyyee xel ci seen xam-xam ak euh, ci seen euh, taxawaay nga xam ni ñii am na ci ñoo xam ni sérieusement bon ay borom xam-xam lan am na ñoo xam ni ñu ngi ñu ngi taxawal nan euh, ay ay ay entreprise di liggéey yow loolu jàpp nga ni est-ce que wurta nekk benn benn benn opportunité muy maanaam maanaam njariñ goo xam ni amaan na sunu sunu sunu njiit yi suñ ko exploité woon du jariñ réew mi ngir soqali ko te buñ ko doon def ci yan anam lañ koy jaarale nga xam ni du nekk rek mbirum politique loolu daal bëggoon naa tamit su ma leen di déggee ngeen di wax ku ci mel ni yow man jàpp naa ni am na ci ñoo xam ni mën na noo jëriñ réew mi loolu yow par exemple lan mooy ci sa xalaat. waaw jërëjëf sëñ Modou dégg naa sa laaj bu baax macha allah leer na. waaw loolu xam nga dafay am à la kullihaal part de responsabilité ndax euh, booy jàng droit constitutionnel euh, première année de droit maanaam boo dalee première année rek ci jàngum droit dañ lay wax la vocation de l'État maanaam état li ñu woowee état lan moo ko tax a jóg ñu ne état li ko tax a jóg moom mooy bien-être population bi mooy seen sécurité maanaam euh, assurer seen sécurité la sécurité des personnes et des biens maanaam assurer itam seen seen seen seen bien-être assurer seen seen développement kon ñu xam ne bu ñu demee ba ay gone gisatuñu solution lu dul jël gaal gi dem kon am na problème mooy li ma wax rek ci njëlbeen gi ne immigration dafay mel ni picc boo xam ne amatul lu mu for dundee ko mu mu naaw dem wuti ko feneen ak nu mu mën a demee ndax sénégalais euh, am na ku ci mës a wax sax ne jom mooy tukki ñu ci baree bari bu ñuy tukki jom moo leen yóbbu ndax dañuy toog nekk chômage ay ati ati at ba xamatuñu ñu def ñu ngi nekk mënuñu euh, dog buumu gàcce nit ñaa ngi leen gis ñu ngi leen di ŋàññi seen kër ak pression sociale bi fa ne boo xam ne gis yow de tekki woo dara moo xam sa mbokk la ko wax moo xam ay dëkkandoo la ko wax waa diw de amul njëriñ waa mi ngi fi rek nga am ay frère yoo xam ne ñi ngi jëf yow mënoo jëf nga dem ba fi mu ne nii tukki bi ñaar la soit da ngay tukki pour mën a tekki am na ñoo xam ne dañuy tukki rek ngir daw ngir daw wax yooyu am na ñu daw rek làqu ci benn réew ba nit ñi gisul leen ñu leen di foogee dara ñu suturlawu foofu ñu di leen bañ a teg ba te duñu mën a faj gàcc kon nag ñooñi ñooy dem ba ba ne daal man bu ci bu jaree dee sax dina dina dina jaay sama bakkan jël gaal gi dem am na kenn suñu kilifa yi ku mës a def benn sortie xam naa bu ma ko junjee di ngeen ko wax ndax ay borom di ngeen ko xam ndax borom yi xel lay wax ba ma defoon ci beneen émission sax ak euh, ci réseau sociaux yi ba ba ba ba wax ni kooku nga xam ne moom suñu kilifa goog yi moo waxoon ne jël gaal gi génn réew mi xarula moom mu gaaraloon suñu suñu kilifa goog ba ne moom dafa juum ba ma génnaatoon ba fàttali wax yi sëñ euh, Sidi Mokhtar ja ne woon kooku teg amul teggin ci kaw kilifa yoonu murit boobu wax lu mel noonu mu di ko wax ne da ngaa juum kon nag bu fekkee bëgg naa falu Euh, na na na jéggalu ca ëllëg sa defe naa wala ci fan yi ci topp ci la jéggalu moom ñu koy wax Guy Marius Sagna euh, ci kaw suñuy Sidi Moxtaar li mu ne woon ku amul teggin doo teggi dara ku yarwul doo yor dara ñaar yooyu laa wax ne ko yow bu fekkee bëgg nga yor dara ci réew mi kon wax ji yooyu na nga ko retiré te na nga jéggalu waaw ci fan yi ci topp gis naa ne jéggalu na xëy na jóge na ci li ma waxoon xëy na aussi jóge na ci leneen ak ñeneen ñu jaar ci suuf conseillé ko wax ko ne loolu li mu doon wax ne euh, njuumte la ci kaw bu ñu waxee de ku jël gaal gi da ngaa xaru loolu mu bëggoon koo teggi moom. waaye nag ñu jàpp ne euh, nu mu ci mën a doon demee rek autorité yi am nañ ci responsabilité ci kaw xëy na réew mi bu neexoon ba am lool yi picc bi mën a fortaatu ba toog réewam euh, mënuñ ko am ba amuñu beneen solution bu dul jël gaal gi waaye ñooñu tamit di jël gaal gi am nañ ci part parce que nag kenn waxul kenn boo mënul ta faj gàcce xarul. déedéet ku ci yëgaloon sa waajur wi la jur moo xam kilo jur ku góor ki wala ki jur ki jur ku jigéen ki ni ko daal man dama bëggoon a jël gaar gi tukki kuñ ci yëgoon rek doo dem waaw kuñ ci yëgoon rek doo dem ndax seen bakkan moo leen di gënal fuuf ñu jël gaar gi ngir ngir ne dañuy dem pour mën a faj faj faj faj gàcc ne ba bakkan a gën a foor loolu loolu daal ci gàttal euh, sëñ moodu euh, Modou euh, responsabilité partagé la maanaam nguur gi war nañoo def ay jéego ba aide yooyu union européenne di dugal ci réew mi ngir téye leen ndax ñoom bëgguñ ñëw fi xaalis bu takkoo takkoo takku la loolu mën nañ ci def ay financement gën ko yaatal gën ko gën ko gën ko gën ko sottiwaat ci jeunesse yi ci jeunesse bi ba ba mën na leen téye foofu waaw léegi nag li ci des mooy jeunesse bi tamit bañ yàkkamti bañ a jël gaal gi rek ndax dara jaru ko dara jaru ko dara jaru ko ndax ku ci faatu woon tamit doo faj gàcce te euh, immigration euh, jël gaal gi dem bari na ay drame yu ci def am na ñoo xam dañuy dañ dem ba egg sax waaye dañuy dof ndax dinañ gis lu nekk ci biir géej gi dinañ gis nit ku faatu seen wet dinañ gis nit koo xam ne dafa dafa dof ci biir gaal gi di def ay délire dinañ gis la lu ne ci géej gi ba nga xam ne dinañ egg Espagne wala ñu egg réew ma ñu jëm mais bu ñu eggee rek dañuy tàggoog seen sago te duñ fi am benn njëriñ ci camp yi lañuy ñuy mujj lu ñu lekk sax duñ ko am te loolu dara jaru ko bu ñu egsee nag la ñuy xam ne loolu dara dara jaru ko woon waaw jërëjëf sëñ Modou waaw jërëjëf sëñ Topp waaw dama doon tontu sëñ Modou moo tax ma yéex euh, tontu dégg naa li nga wax bu baax ndax thème bi euh, mu ngi nekk immigration et développement maanaam euh, du rek ŋàññi ñi nga xam ne ñu ngi dugg ci réew mi di def demande d'asile wala ñu jël gaal mi gaal gi waaye wax naka la ñuy def ba mbir mii nga xam ne mooy immigration di un drame national naka la ñuy def ba mën cee joggi ba am ay solution yu suqali réew ma ngir kenn bañ a soxlaati sax euh, di def luy mel ni immigration ngir wuti am na immigration boo xam ne nag moom ñëw touriste dem réew réew visiter kook yooyu yooyu taxul ñuy wax waaye ñëw fii ngir defee ne boo bàyyee sam réew di nga ñëw fii tekki te boo fi ñëwee di nga fi toog ay ati at boo duggul daal situation régulière moo xam étudiant nga boo ñëw ñëw jàngi si fii sa jàng bënn nga liggéey fii am expérience dellu sa réew loolu moom jarta ñëw sax jël gaar ndax boo fi ñëwee di nga fay perte ay at at yoo xam ne te du tax nga am kayit te boo amul kayit mu doo mën a ñibbi te boo moytul boo bàyyee soxna sa ginnaaw soxna sa bu santee ñang dootu la xaar day dem yoonam kon nag ñu jàpp ne mën nañu jàngat ci loolu ba am ay voies et moyens yu ñu fixé xale yi ñu mën a toog ci réew mi dafa am ñaari levier yoo xam ne lañ mën a sukkandiku ngir développé wu fii ñu toll nii fii àdduna toll ak fii Afrique toll benn bi moom mooy euh, entrepreneuriat benn bi moom mooy investissement entrepreneuriat mooy nit ki bañ a xaar ne état moo ma war a jox liggéey nit ki war a mën a monter entreprise am entreprise nag boo ko waxee day xaw a rëy ci koo xam ne xëy na jàngam soriwul wala koo xam ne dafay def boo nee entreprise mu ne ëw oh, loolu société bu mag déedéet entreprise mun na nekk euh, lu ñuy wax start-up mooy entreprise bu ndaw boo xoolee ouvrier bi nga xam ne kii bijoutier bi entrepreneur la ndax moom ci ay mbiru boppam yëfu boppam la yor kon am na nu mu koy tegee ci yoon état bi cible les petites et moyennes entreprises mooy entreprise yu ndaw a ndaw yi mu ngi mel ni exemple bi ma joxe ak ñi nga xam ne am na ñu jàng informatique bu ñu tàmbalee jàn jën jaay ay produits informatique ak dépannage ak dem di jaay ak jën mais ñu yor nañ benn entreprise bu ndaw état bi jéem a xool nu mu sukkalee ñooñu maanaam jàppaleel start-up yi ci kaw lu ñuy wax euh, politique de développement ndax état mënul créer emploi ku la fi mën sa wax mën a wax ne bu ma falee ma wut ay emploi emploi yi du bari parce que fonction publique bariwuñu état day créer les conditions de l'emploi mooy jël naa xaalis injecté ko ci ci ñi nga xam ne ñoom ñooy entre ay entrepreneur defal leen ay ay exonération fiscale ba ñu mën a tàmbali seen entreprise di dox ndang di dox ndànk ba entreprise bi taxaw ci kaw bu ñu déparé rek cotisation sociale yeeg cotisation yi ñuy joxe yëpp yu jëm ci organisme yi ñu wàññi leen ko wala ñu exonéré mooy baal leen ko ba ñu entreprise bi mën a taxaw ñu soog a ñuy soog a fay ci kaw aussi faciliter faciliter leen mooy yombalal leen accès au financement mooy ku ci présenter sa projet ñu xam ne kii li muy def xam na ko mën naa dem boo ko jàppalee ñu faciliter ko gar ak ay garantie yoo xam ne état bi moo koy def pour banque yi mën na la abal ñu mën a jàpp ci benn capital mën cee liggéey loolu tamit lu am am solo la moo gën ñu di leen laaj ay garantie classique des banque mooy ñu laaj la solvabilité te kuy soog a tàmbali amuloo dara mënuloo indi benn garantie de solvabilité yi nga xam ne banque classique yi moom la ñuy laaj loolu loolu am solo la ñu ñu bàyyi ci xel beneen bi mooy investissement investissement mooy koo xam ne ñëw nga fii Europe yaa ngi fortaatu as tuut ñu état bi xalaat ci nu mu mën a organiser émigré yi yi fi ne am as ñu am soit seen benn banque des émigrés au Sénégal mën fa jël seen xaalis dugal ko foofu mën a investir ci benn secteur moo xam ñu investir dans l'immobilier wala dans l'agriculture wala lu mu ci mën a doon émigré bi bu amee deux mille euros émigré bale am cinq mille euros émigré bale am am dix mille euros mën nañ dajale facilement benn cent mille euros boo xam ne mën nañ am ñoom ñëpp benn projet d'investissement dans business boo xam ne ñoom ñëpp mën nañ ci gis seen bopp mën nañ am benn projet d'acquisition en copropriété boo ñëwee yow benn immigré bi mënuloo jënd benn immeuble juróomi immigré bu ñu dajee ku nekk def dara di ngeen jënd benn immeuble bu ngeen samp Dakar soit mu am plus-value ci ñetti at mooy leneen teg tegu ci moo gën moo ma jërëf joxe exemple nga jënd immeuble euh, fukki euh, comment dirais juróomi immigré nekk fi kii am lii ki am lii am li ngeen jënd benn immeuble cent millions su ngeen su ngeen doxee ñetti at cent millions yooyu immeuble jaratul cent million cent quarante yéen ci ñetti at yooyu am ngeen quarante millions yu ngeen séddoo kon benn immigré bi attanul moom tabax loolu waaye juróomi immigré wala fukki immigré mën nañ daje def acquisition euh, en copropriété léegi yooyu yëpp nekk ay exemple exemple yoo xam ne dama koy dama koy joxe ci kaw beneen levier bi nga xam ne boroom xam-xam yi jàpp nañ ne moo mën a développer Afrique mooy l'investissement investissement boobu ma état nga xam ne mënul créer emploi lu dul emploi yu néew lay créer mais l'état crée les conditions de l'emploi mën a jàppale euh, organiser émigré yi créer leen benn banque d'investissement prépare leen ay organismes yoo xam ne émigré bi su ñëwee dina mën dem foofu directement mën a ne man ñun dajale nañu li lii la ñu bëgg ñu monter seen projet dugal ko ci banque bi ñu financer leen ñu mën a monter seen projet def seen investissement loolu tamit lu am am solo leneen li mooy investissement bi doyul parce que investissement boo koy def ba pare nekk à l'étranger soo moytul Sénégal ñu bëree bari investir nañu ñu jaar seen kaw ñu am benn présence loolu tamit ci encadrement état la bokk nga xam ne dañ am benn garantie garanti euh, de de de l'investissement bu ñu bu ñu fa nekkulee ñu am lu leen garantir na seen investissement am benn surveillance bu stricte boo ak benn contrôle boo xam ne c'est un contrôle permanent pour que investissement bi bañ a nekk loo xam ne maali foro la waaw jërëjëf suñ toog asalaamaaleykum wa rahmatullah sëñ Souleye ñu ngi lay ziyaare bu baax a baax di sant bu baax a baax a baax a baax xam naa ne tey moom euh, dana war a defalal li ñuy wax mbooñaa ci suñ programme bi ngir euh, waxtaan yi mën a sar yaatu tuuti ndax ñu lu bari mën ñu mën koo développé bu baax a baax a baax Euh, danaa la dëgëral bu baax a baax a baax ci lii nga wax te wax dëgg yàlla responsabilité bi moom euh, ci ñaari xaaj lay doon euh, dafa am sama jarbaat boo xam ne nii dama koy faral di nettali dafa dikk ne ma tonto boo ma yóbbul ma tukki danaa dugg ci gaal yi ma ne ko man de lenn dong ma ciy naqari soo duggee ci gaal gi man sama yoon newu ci soo toogee sama yoon newu ci waaye lenn may naqari mooy ngay dund amaloo kenn njariñ di dee nit ñi di la jooy loolu daal moom moom moom wax dëgg yàlla man moom du ma bokk ci ñi lay jooy moom benn li ci des it ñi nga xam ne nii lijjanti nañ dugg ci gaal yi di yéeg ko wàcc ñii di dee ñii di faatu ñii di wopp ba agsi ba dugg Europe itam surtout bu dee Italie am na fi ñoo xam ne bu fi duggee lii nga wax ne ci nekk maanaam dañuy tàggu dañuy tàggoo ak seen sabo ñu ci baree bari bari problème bopp la ñuy indaale problème xel waaw ñu ci bari muy góor ak jigéen nag am nañ ci ay jigéen ak ay góor yoo xam ne nii dañoo tàggoog seen xel spécial nga xam ne ni moom amalutuñ benn njariñ société maanaam fi ñu ñëw nii sax amaluñ leen njariñ te duñ xam ni leen di def loolu nag wax dëgg di ay jafe-jafe yoo xam ne nii xam naa ne euh, jotaay bi moom danañ ci jàngaat defaat yeneen jàngaat yu rëy rëy rëy ndax lii moom ab tàmbali woon la rek waaye moom leer na ma naññ ni moom moom benn benn jotaay wala ñaari jotaay ñetti jotaay mënu koo matal sëñ Soleil ñu ngi lay sant bu baax a baax baax lii daal sedd na xool. jërëjëf sëñ Modou jërëjëf ah déet kay la ñuy sant bu baax a baax <laughs> ndax xam naa ne sujet bi ñuy aborder nii maanaam waxtaan wi ñuy waxtaanee xam naa ne bëri nga ci xam-xam lu ci bëri yow yaa ñu ko gën a xam fuuf waaye nag ñun ñëpp ñu ñoo ñoo ko seq rek ngir laayante ci biir maanaam pour gën a yee ñi nga xam ne jàpp nañ ne immigration mooy solution bi waaw ñu gën cee bàyyi xel xam ne daal am na yenn yi moom dara jaru ko dara jaru ko yaanu sama borom dolli sutura barke Cheikh Khadim macha allah macha allah macha allah macha allah Souleymane Koddu non da nga laal point boo xam ni man daanaka booy xool dama cee def ay recherche bi nga tuddee banque des immigrés loolu moom dafa nekk loo xam ni euh, Italie gi ma nekk banque crédit coopérative ay immigré yu nekkoon aux États-Unis wala ñu nekk en Argentine ñoo ñibbi si taxaw ko état bi jàppale leen muy yoon wu gaaw yoon wu gaaw woo xam ni rek man bu ko état bi euh, defoon euh, dina dimbali immigré yi dana dimbali ndaw yi ni ci réew mi bëgg a liggéey muy banque des immigrés mënoon naa nekk banque boo xam ni xaalis bi ñuy envoyé muy ñëw. ñu koy jox sunu njaboot da koy da koy da koy da koy da koy taawu maanaam lépp fa lay jaar lépp fa lay jaar lépp fa lay jaar nga xam ne dana mën a nekk euh, banque boo xam ni euh, dana am liquidité dina am xaalis ndax bu état bi taxawalee convention lépp fa lay jaar muy li nga xam ne moom la ñuy envoyé muy muy ñëw Sénégal rawatina tak condition yi nga wax loolu lu mat a bàyyi xel la Sénégalais yi bëgg na noo liggéey fii koo fi gis rek Eh, juróomi sénégalais wala fukki sénégalais yoo ci yoo jël rek ñu nekk ay ay ay ay ay immigré ay ay Sénégal de l'extérieur mus na noo am partenaire boo xam ne dafa bëgg a ñëw liggéey ak liggéey si Sénégal ndax Sénégal musta am coup d'état Sénégal situation bi nekk na situation boo xam ni dal la dal na moo tax condition yooyu eh, da nga ko laal muy li nga xam ne mooy sunu góom mooy sunu feebar nga xam ne état bi bu ko defoon rawatina li nga wax nga xam ne dama koy dëggal euh, li naan euh, ay avantage ay avantage fiscaux loolu mooy lan mooy bu doon doon war a fay fukk war a fay fukki dërëm ci ay taxes ñuy leen année bu njëkk bi dool ñaar ñaar ñaar ñaar ñaari dërëm ngeen di fay wala doo leen fay dara année bu njëkk bi ngir bàyyi leen ñu suqaliku yëkkatiku loolu dafa nekk loo xam ni moom la chinois yi def defal ko seeni doomi réew ci ci ci benn convention boo xam ne euh, moom lañ signé woon fii ci Italie Euh, ñu mën fee am euh, kàttan euh, man fee am doole te tamit seen réew bu ñu demee ñooy leen a jàppale loolu jàpp naa ni yoon la wu am solo woo xam ni rafet naa njot buñ ci jaaroon lin liñ bëgg di ko am kon ñu ngi lay sant bu baax ci fi nga xam ni développé nga ci ndax dafay loo xam ni Maroc def na ko Euh, Chine def na ko yeneen dëkk tamit ñu ngi koy def nga xam ne suñ ci jaaroon rek incha allah danan danan danan danan danan soxli ko beneen beneen question bi nga xam ne moom laa lay laaj ndax gis nañ ni temps bi mi ngi dem murit gi murit gi su lay ma kodd ci dëkk boo xam ni muy France ñoo jàppoon sëñ bi di ko sànki léegi ñu dem ba murit yi ñëw France samp fa gis nañ kër gi nga xam ne sëriñ Saaliw moo ko jëndoon muy kër gi nekk damay fàtte euh, dëkk bi ci dans la ci ci dans la banlieue parisienne nga xam ni murid yi ñoo mujj euh, ñëw samp fa euh, di fa liggéeyal sëñ bi Souleymane Kodou yow noo gisee noo gisee taxawaayu murid yi ci ci ci ci ci France est-ce que nin waroon a taxawee yoon wi ci wàllu xam-xam ci fexe ba maanaam xamale sëriñ bi xamale euh, euh, euh, le mouridisme parce que tamit yoonu yoonu murid ak message yu Cheikhul jàpp naa ni buñ ko xamalee nan ko war a xamee dinañ xam ne l'islam gi sëriñ Touba jàngale moom mooy l'islam ndax lislaam buñ ko ragalee ba France kuy xeex lislaam kuy xeex ngir am ndam da ngay da da ngay dal ci lislaam loolu dafa wane dafa dafa dafa fekk amaan na tamit sunu mbokk jullit yi nga xam ni ñooy les maghrébins ni ñuy wanee lislaam moom mooy loo xam ni dëgg-dëgg daanaka ba xool euh, day day day des te ñun nag ñu am euh, di euh, message boo xam ni am maanaam kilifa goo xam ni muy cheikhul xadim nga xam ne lislaam gi lislaam gi mu woote lislaamu jàmm la lislaamu yërmande la lislaam goo xam ne dafay intégré maanaam euh, anam yëpp yi nga xam ne mooy dundu doom adama ba ci liggéey yow daal bëggoon naa daal laaj da yow yow yow est-ce que nin war a woon a taxawee yoon wi ci xam-xam euh, fexe ba tamit xamale ko ba nit ñi di tuub loolu ban jàngam nga ciy def waaw jërëjëf sëñ Modou ci ci laaj boobu ngay wax moom koy état mënu cee génn loxoom état mënu cee génn loxoom ndax junju naa lu mel noonu muy état dafay accompagner nit ki nga xam ne dafa bëgg a créer entreprise am ci kaw am na benn politique boo xam ne politique d'accès au financement la maanaam fexe wax ak banque yi ne leen na ngeen xettali maanaam na ngeen assouplir maanaam na ngeen nooyal na ngeen yombal conditions yi nga xam ne immigré bi bëgg a investir indi mille euros ngeen euh, dimbali ko ba mu mën a am bu indee deux 2000 euros am am 20000 euros bu indee 2 millions ngeen mën ko lebal 20 millions loolu état moo ko mën a lijjanti moom wax ak ay banque euh, wax ak banque yi fa ne ba ñu mën a yombal loolu immigré bi waaw ñaareelu mbir mi moom mooy li ma junj sànq muy exonération fiscale xam nga entreprise buy soog a juddu du amagum doole du mën a fay euh, ay cotisation du mën a fay ay employés du leen mën a sax euh, teg ci ay condition yoo xam ne condition mën leen a recruter di leen fayal IPM di leen fayal nangam ak nangam nangam am état bi tamit am na foofu part de responsabilité bu mu leen war a mën a gunge moo xam exonéré leen fiscal ne leen yéen créé euh, maanaam société bi du fay dara état du fay benn cotisation euh, fii ak amul ñaari at ba ci ñetti at loolu tamit dafay nekk ay accompagnement yoo xam ne Sénégal euh, état munu ci génne loxo loolu am am solo la bu ma jëlee benn exemple fii ci Touba te loolu dund naa lu mel noonu mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy service sécurité sociale ak ñi nga xam ne ñoom ñooy service bu dee fii ma ne inspection du travail la dañuy bëgg a ñëw léeg-léeg ñu ñëw ci benn barab bu ñu bu ñu bu ñu ubbi pour di jéem laaj kooku euh, dugg dans leen normes mooy mooy salariés yi mu mën leen a déclarer euh, di leen joxal ay cotisation alors yow cotisa euh, entreprise bi nga koy waxal taxawagul taxawagul te boo leen laajee am na ku ma ci mës a laaj ne ko waaw yéen xanaa Dakar ñu ne waaw Dakar loolu du fa am parce que maanaam entreprise yi faa bari waaye fu mel ni Touba yu demee noonu entreprise yi bari kon ñoom dinañ am jotu ñëw contrôler te entreprise bi ñu koy def ah, ñaareel benn immigré mooy ñëw ubbi foofu tàmbali ko suqale jël ay ay ñoo xam ne waa Touba lañ ñu fay yëngu waaye déclaré wu leen pour mën di leen fay IPM di leen fay seen aju seen sécurité sociale di leen cotiser seen retraite ak yu demee noonu loolu état moo ci mën a dugal loxoom ngir dooleel entreprise boobu ba su départ ñu mën ko exonérer ba mu ba doxee tuuti mën a fay ay salariés am leen di leen fayal seen cotisation retraite di leen fayal seen IPM yu demee noonu waaye boo seetee accompagnement état su desee benn entreprise mënul am doole. ba mën a defal defal loolu ay salariés su ko defee nit ñi dañuy bu ñu liggéeyee ba am accident du travail sax ñaareel du ñu am lu leen jël en charge bu buñ ci liggéeyaat yi at tamit bu ñu leen dàqee du ñu am retraite du ñu am dara ñaareel soo leen di fay xobbet xobbet nga leen di jox amul bulletin de salaire amul dara donc loolu nuñ ko tàllal fenn mën a am kër mën a am leneen kon daal yii daal mooy ay jafe-jafe yi nga xam ne sëñ Modou euh, état am na ci dëgg-dëgg par de responsabilité parce que soo amee sa xaalis ñëw ne da ngay investir bu ci état dugalul loxoom ngir yombalal la ko investissement bi soo moytul dafay restel ci lu ñu wax euh, day nekk informel rek wala du du la amal njëriñ bi nga xam ne moom mooy tax nga bëgg euh, investir ba mën a ñibbi sam réew te ndax ñaareel ñiy investir ñëpp pour mën a mën a am ci leneen lu ñu jàpp ngir jege seen njaboot ngir ngir ñibbi seen réew waaw jërëjëf sëñ Modou. jërëjëf jërëjëf jërëjëf euh, ne ko Olof Njaay di waxee rek li duuf lépp ci nag wi xajul ci cin li moo tax xam naa ni dañuy sant Serigne Samb moom mi nu may doole nu minutes ndax euh, ki nu woor a invité ko xam-xamam moo toll noonu ak dayoom Souleyma Codou Fall. tey jii sa faaleen gi moom duma ci wax dara ñu ngi lay sant di la gërëm ndax dama naan eh, ku ci mel ni yow ak eh, Balla Moussa Fafana ku leen di déglu sa xel dana dar sa yaakaar dana dëgër ci ëllëgu senegal ndax man da dëgg toog toog ña gëm naa ni senegal bis bu to tegoo ci loxo yu set ñoo xam ni danoo am xam-xam xam-xam bi liñ ci jublu ngir jariñ askan wi nekk ñu bëgg seen réew am diine am taalibe senegal dana avancé moo tax bokk na ci ñaan yi may ñaan yàlla nañu sunu borom jox ay kilifa yu jub ndax senegal lool rek moom ko moom dong dong dong moom la dese ndax dëkk boo xam ne seexul Khadim moo fa wàcc ak li mu liggéey ci xam-xam ak ni sagalee dér bu ñuul ak ni mu sagal sagalee maanaam euh, euh, l'islam ñun jàpp naa ni solution yépp taxaw na moo tax dégg naa comité bi nga xam ni moom la sëñ Abdou Samad di wax ñu di ko rafetlu te ma ci adere ndax man dama gëm ni euh, intellectuel li ñuy wax les intellectuels murit te ñuy ay murit taalibe damay sukkandiku ci taalibe nga xam ne ñoom dañoo gëm sëñ Touba gëm ni dañoo war a liggéeyal sëriñ Touba ci seen xam-xam ñooñu dëgg-dëgg war nanoo taxaw àndandoo nekk benn di tega yëkkatindoo di tegandoo jàppante ay loxo ndax gëm naa ni réew mii di Sénégal bis buñ fexee ba maanaam njàngalem Serigne Touba ñu tënku ci dañuy tiim àdduna bi loolu moo amu ci sikki sàkk kon lii dafa nekkoon ab tàmbali rek bu mu def ci Souleymane Kodou Fall dinañ invité waat ñeneen ci mel ni euh, Amérique Eh, ku ci mel ni xaadim buso loolu ñu ngi ciy bàyyi xel ndax dañoo bëgg wër diaspora bi borom xam-xam yi fi nekk te ñu rafetlu seen xam-xam ñu ñu ñu ñu ñu waxtaan ak ñoom ci immigration wante laalaale li nga xam ne moom mooy développement suñu réew ndax xam-xam moo yor am réew xam-xam yor am réew amul benn réew boo xam ni avancé na te euh, euh, tënkuwul ci xam-xam ak ay valeur loolu nag ñun dañ koo am ba mu doy sëkk ci Serigne Touba. kon su lay Souleymane Kodou ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm di ñaan suñu borom dëgëral taxawaay bi yokk xam-xam gi ndax képp ku la dégg ngay wax rek euh, da da da dañuy xam ni euh, euh, homme ressource nga leen naan des ressources humaines dafa am des intellectuels murit yoo xam dañ koy incarné te man rafet naa jot ci ñooñu nga bokk kon ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di sant daaya sama di di jéglu ci guddal bi ndax euh, Souleyma Koddu euh, day jëmm joo xam ni euh, lu bëri war na koo war a génn xamale ko te tamit jokkoo ci whatsapp bi léeg-léeg dafay yeex moo waral ñu ñu ñu xaabaabal kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan suñu borom may lu ñu yàgg koo def ay at yu bare bare bare bare te suñu borom dimbali nu ba li yéene lépp ba tax ñu sant samp daare samadi ñu am tawfeex gun ko matale ci kàttanu Cheikhul Khadim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa nun daara as man la toom Niang maa leen di nuyu di leen ziar di leen balu ak te di leen baal di ñaan sunu borom boole nu jéggal nuyoo beeg ziar bi ñu ngi ciy jiital jëwriñu barab bi di sëñ Abdou Samane Mbacke tey rafetlu liggéeyam di ñaan sunu borom dolli nu tawféex nga xam ne rek moom rek moo mat a ñaan euh, ba lii nu yéene lépp muy lu baax te weesu lu dul liggéeyal sëriñ Touba euh, sëriñ Touba dëpp nu kàttan gun ko matale ndax groupe bi saa soo koy dégg rek wala ngay déglu boroom xam-xam yi liñ fiy sotti nga xam ni ku nekk sa yéene mooy rek li nga xam ci lu néew nga fexe ba rek liggéey ci sëriñ Touba kon yàlla nañ ci am tawféex. Euh, comme ni ko baaxoo def rek samedi bu nekk bu huit jotee ñu nekk ci émission bi nga xam ni mooy immigration et développement immigration et développement nag luñ ci jublu fexe ba immigré yi yi nekk ci àdduna bi muy diaspora bi nu xool lan mooy seen taxawaay foofu nu nekk ci barab yi fasantikoo te ñu xam ko euh, nu jéem a fexe ba rek euh, xam-xam bi nu am ñu fexe ba jariñoo ko ndax amul benn réew boo xam ne ci àdduna euh, développé na te diasporaam jàpp ci loolu nag mooy tax ñu tudde koy immigration et développement tey nag euh, danoo ñëwoon ngir waxtaan ci benn thème boo xam ne am na solo lool di temu jamono muy réfugié euh, réfugié nag buñ koy tekki rek mooy euh, daw ku daw làqu ku daw làqu ndax immigration dafa bëri ay façon mooy ki nga xam ni yàlla dafa def moom dem ñaan visa génn dëkkam dem feneen ngir liggéey ngir war ngir jàng wara ngir sax tourisme kooku immigré dañ koy wax bu dee réfugié nag mooy koo xam ni moom moom dañ dañ koo bundu xatal dañ koo bundu xatal ci xalaatam wala ci pas-pasam tax mu daw loolu nag dafa wuuteeg li ñu naan immigré gis nañ ni nag jamono ji ni mu ni mu ni mu ni waar te li ko tax mu gën a doy waar mooy li ñu naan mbëkk mi barza barzaq ñu dalal ci nag koo xam ni ñun ñëpp xam nañ ko rafet lu xam-xamam rafet lu taxawaayam ma koy woowee aboka avocat avocat Serigne Touba <laughs> Serigne Souleymane Codou Fall ñëwoon rek bëgg waxtaan ak moom euh, ci li nga xam ni moom mooy euh, réfugié yi su ko defee mu ñu def ci benn jàngat bu xóot xool tamit ni mu lëkkaloo mbirum immigration lan mooy ci taxawaayu sénégalais yi ak jafe-jafe yi ñuy dund ak yoon yi ñuy jaar ba laaj loolu ñu naan statut de réfugié ak li nga xam ni euh, jamono ji ñu toll nan la ci état européen yi taxawee yooyu yëpp mu nekk ay jàngat yoo xam ni danoo bëggoon tey ji ñu def ko ànd kook moom ak Mamadou Diop incha allah euh, ci waxtu xam naa ni comme que xaw nañoo retard ndax débat bu am solo bi nga xam ne sëñ bank sëñ bi ci doon def muy comité bi muy wax moo tax ñu ni nan nan nan nan nan nan taaxeelu rek euh, mbokk yi jeexal lii ñu door a tàmbali.